tey jii saa yi yéen seen affaire yooyu yow ci Ousmane Sonko nga far. waaw Sonko la. non ma yéen ñaar la ba jëm kanam borom koy fayal. a yoon ñëw ci ñoom ñaar la. xam nga moom dafa ma accusé a ma président dafa la jox. waaw ma ko yow ci Sonko nga bokk. ah d'accord parce que man accusé wu ma la ma dama commencé. dañuy waxtaan rek non dañuy fekkee. Mhm. ñu may jox xaalis. dama ko gis non dama la laaj dama la ni da nga gis ñu jox ma xaalis. dama la ni non dama la posé question. weddi ni jox ñu la xaalis. joxuñu ma biscuit laala ci weeru koor barke yeneen ci yàlla Muhammad joxuñu ma téeméer yaa ko sañ de leer mais je dis je dis tout simplement non non grand grand bu ma dagg grand boobu dañuy waxtaan ku yor de parole amul dañuy waxtaan dañu bàyyi may ba ngay wax dama noppi déglu la. non yow kay nga sa vie pendant 40 minutes ñëpp toog di la déglu. man te li nga doon wax léegi. si sa papa dafa am solo parce que da nga sa papa daf la inculquer ay valeurs. valeur yooyu ma dëgg bi nga doon wax ak principe yi nga xamante ne da ko doon wax. parce que tey boo toogee ni Sénégal ndaw yi dañoo toog du yomb di laaj ay bool ak yooyu xamala la ñam euh, xamala la ñam non non important parce que saay man maa yor temps de parole wala moom maa yor temps de non sax non non gars yi loolu mooy non non bëgguma loolu non non may ma wax après moom mu wax man bëgguma loolu man dañ na nangu man warante wu ma warante wu ma mais léegi léegi fii de raconter sa vie ma la vie bala dama ko wax man xam nga tax may raconter sama vie vie bu normal laa mosuma sàcc mosuma def jubali waaw non dama demoon tamit yow la engagé dama bëgg nga déglu ça n'intéresse pas beaucoup les Sénégalais tey xam nga lan moo ñu fii waxtaan ak Sénégalais yi ci lu leen di jàppale leen jëmale kanam mais Paa Matar ah, eh, ko mu daaneel Paa Matar nga dama bëgg nga déglu bu baax loolu Sénégal ñu teral man ba ma dee wax ni da ni ma yaa xurum xaq yi ne toog mm-hmm. nga woo ma man ne la dinaa ñëw ok xam waxuma woon Pape Matar Sarr ngay toog te pourtant xaw ma bi ma ñëwee dama toog di waxtaan ak moom man dama bëgg sa victimisation bi gis nga man aussi bi de bu nekkee loolu la bu nekkee loolu la bu nekk mën na lii quoi arrêtez sa yii quoi ñu waxtaan c'est d'accord non mais ku nekk ku nekk fii kenn wax jógal wax maa jël carte gi non jógal wax sama ñu maa ñaar ñëpp ay gan ngeen. wuy ma xam lan laa bëgg. non non ma ma ko yéen ñaar ñëpp ay gan ngeen. aca vas-y. waaw vas-y vas-y vas-y. xam lan laa bëgg. Uh-huh, man yemuma kenn kenn du ma yem. Uh-huh, vas-y est-ce que man kenn du ma yem. mais fii ay yabaate non non non dañuy ñëw fii pour def waxtaan quoi non vraiment bu ñu jël débat di ko yóbbu yeneen wax non kenn du la yabaate ma non non booy wax ay yabaate ma yam kay ñu fam ko yam ma affaire yabaate du am affaire yabaate du am affaire yabaate du am wa xaar xaar mo gën la may mais s'il vous plaît mam mam go mam go fi kenn du fi yàq kenn voilà yaa may dégg non non s'il te plaît mam go yow tam ñëpp seetaan Gomis man Gomis waaw Gomis man dama lay wax benn affaire man du ma yeb kenn ma yeb non kenn yebu la fii ok non non non dañuy waxtaan non dañuy waxtaan non dañuy waxtaan waaw mu yeggali nga man dañ ma invité fii ci plateau bi ok ni ma diw ngay toogal fii man werante wu ma xulóowu ma moom su ko neexee mën na lu ko neex suy wax billaahi du ma ko dagg du ma ko dagg mais man xam nga ma gën a bañ hmm. may waxtu may ruubeeg yooyu man bugguma yooyu dañuy waxtaan ay raconté sa vie ay vie man bii bu correct laa am moo tax ku am vie bu correct raconté ko dañ ko posé sa question non dama bëgg expliqué parce que bu ay raconté ta vie man nekkuma yoruma vie wu xaaj Non mais attends, c'est pas méchant. C'est obligé de répondre. Non, non, non. ay émission yi kenn du si profité di ma yeb. waaw ok léegi ñëwal ci ah, question bi. man kenn du ma yeb. après naa la jox kàddu. man maa la ñaan maa la ñaan après kenn du la daal di plateau teg ma question voilà léegi yow ci yow lañ nekk eh, ci yow lañ nekk dama yox grand ah. même wax ba yeggal li ma wax dama bëgg Sénégalais yi dégg ko dimbale xam nga lan laay bañ non xam nga lan laay bañ non dégg rek dañu ñëw fii daje di def plateau tey ku bëgg ay vue nga dem wut sa ay vues. xanaa du si yow nañu koy wutee de mais c'est quoi ces choses là quand même. est-ce que comprendre il faut que ñu respecté seen déclaration. Papa Dia Bamata Bamata Bamata après nga wax bàyyi ko voilà bàyyi ko moom nga dem ko kenn daal vas-y Mangor Mangor vas-y saa téléspectateur la waxatuma non non non non parce que bu doon nekk kenn dañu wax Mangor loolu mënul nekk Mangor Mangor oui ma euh, Mangor Mangor bon léegi may ma léegi may ma may ma tuuti rek may ma affaire may ma may ma yow yaa may may vas-y xam nga euh, gis nga euh, Mangor Euh, man defe naa ne dañu nekk ci euh, plateau boo xam ne faw mu am contradiction mhm. man mun naa wax loo xam ne du neex Aliou Sow euh, Aliou Sow du ci ànd moom mu tontu xam nga il faut que ñu lépp nañ ko defee yow waxal sa wax Pape Matar yow tamit nga bàyyi ko moom mu wax bu bu bu waxee ba pare yow nga jël amul benn problème jarul ne la ba yow nga naan da ngay kii gedd bañ a wax waxal kilifa nga waxal voilà Gomis. ok voilà xam nga lan laa bañ. Mhm. man neew ma kii sànq fa tey ñu di wax. boo waxee mu roof lu waxante. Mhm. xam nga lan laay bañ ay raconter ta vie xam nga raconter mooy kon da ngay fen rek. man kenn wax yooyu. mais xanaa da nga non yooyu man. Pamata Pamata s'il vous plaît man dama la ko mu daan man yooyu kenn du ma ko def. d'accord non damay wax. non non dañuy waxtaan xam man dama bàyyi suma kër tëngeej laa jógee. dëgg la 28 kilomètres ñëw fii. dëgg la par respect. saagawuma kenn xasuma kenn man du ma toog ñu naan man tu racontes ta vie. j'ai jamais dit ça. loolu moo ma s'il vous plaît Pamatar mais dama ma ko wax. peut-être loolu da koo métti bàyyi ma leeral li ma nga xam nga dama ko dafa dafa wax mooy may interagir ci ay argument mhm. mu ma bàyyi mu yeggal may ko non non la bàyyi ngay raconter toute ta vie. wax nga 40 minutes di raconter ta vie loolu c'était pas péjoratif. wax la da ngay sa vie du saaga mam je n'ai pas dit que ni da ngay raconter sa vie ci sens boo xamante dafa péjoratif pour saaga la wala pour manquer de respect mm-hmm. mais yaa ngi insisté sànq ba tey naan dañu lay invité maam Ngor duñu lay invité dama Cheikh Niass jëlee téléphone am ma ni ma Pape Makhtar boo ñëwee ci plateau bi man la yow la ak Karim mm-hmm. ba mu ñëwee gis fi Karim si mm-hmm. studio bi laa doogaay xamee ni Karim dafa désister donc nu ñu la invité nga bàyyi sa yitte bàyyi say soxla man noonu laa bàyyi sama liggéey bàyyi samay lépp ñëw toog fii te ñëwuma fii pour manquer dañuy waxtaan mais waxtaan foog mu am interaction sinon nga toog di wax mel ni kii gàmm bu ma paree man aussi ma mel ni kii gàmm loolu amul sens du ci jëlee njëriñ mhm. mën nañu waxtaan mun am contradiction mais du tere euh, ñu respectante man je pense pas que ñu war fi nekk di manque de respect dama mais boo amee ay préjugés ci man di ma naan Sonko nga ak yooyu noonu parce que da yaakaar ne que dama ñëw fi pour xuloo sànq ba ñu nuyoo rek nga nuyu ma way ñëw ma pour xuloo man je suis pas ici pour xuloo dama lay wax benn affaire gis nga man mi ngay gis nii dama lay wax benn affaire man ñii ma yàgg a xam xam na ni man bariwuma histoire dafa am ay moo yoo xam ni man du ma accepté nit di ma ko wax gis nga tey ji dama lay barke yeneen ci bi weeru koor lañ nekk li mu doon bi tey nii moo tax ma ñëw man ay débat yi du ma si dem parce que yoo xam ni waroo toog ak ñoom ñu nga ñëw toog ak ñoom ñu wax la loo xam ni waruñu la ko wax man kenn du ma dépassé du ma dépassé kenn tamit. mais est-ce que c'est le cas waaw mais même rek est-ce que c'est le cas parce que yenn insinuation yi aussi non nañu respectante quoi parce que aussi non li muy wax aussi man bi la waaw léegi mën nañoo avancer s'il vous plaît billahi wallahi taala Pape Makhtar bi bi nga commencé wax daf ne rafet lu xam moom naa ko njëkk sax interpellé ci loolu mu rafetlu li nga wax waaw non waxin la incompréhension la waxin la dangay nettali sa àdduna boobu bàyyi dindi naa dindi naa français boo yemee cinquième aussi boo yemee cinquième aussi bu ñu la làqee nasaraan da ngay jaaxal mais li ma wax du saaga dam la xam nga cinquième la yam ay man yow si sa bopp nga ni man nitu ay baaxul man du ma nitu ay chaque jour que je fais télé laa nekk ay télé dañ may woo ba sonn ay affaire ay débat yi ama jot man bëgguma sax gën télé saay parce que man wutkatu mooni laa suba sept heures laay yeewu dem gàncax ji mooni man aw ma temps. non ma seedeel la maa la forcé pour nga ñëw. dama lay wax ma seedeel la loolu léegi nag ñëw naa ñuy def émission moom keneen ak keneen ku nekk am nga droit xar ku la neex man li may wax ci jeunesse bi xam nga dangay toog yenn saa ñu wax ay wax yoo xam ne. nit mën na ko dégg ñu ne maam góor dafa attaqué jeunesse bi man attaqué wu ma jeunesse bi dama ni nit koo gis ci àddina soo xëyee danga nga war a dem sabab lu ji mais booy toog di xaar lépp ci état état mënul jox ñëpp même États-Unis gay nga xam ne ñooy première puissance mondiale am na ay chômeurs saa yi ñu waxante dëgg est-ce que gouvernement nag président yéene bu baax la mën a am mais yow même si sa biir njaboot mën nga am doom boo xam ne day xëy naan sama papa yàlla bu mu am dépense te pourtant boo amul dépense moom du añis mm. mais yéene wu la dépense bi donc ute nag bopp rawati nag ku yor gouvernement